dikkati naa sikundik sikundik day jinne jommal na la turbine yéene ne déet fi ne réewum Sénégal kay li fiy mooy dialogue bi dialogue bi tas na kër yi tas na parti politique yi tas na coalition yi riigal fii sa baaraam turbine ne ma fiye nooy ma xamal la dialogue ba la mu jot a def ci réew mi ci lu ñaaw ci dialogue boo xam ne amaloon nañ ko fii ci réewum Sénégal xam nga dañu naan dialogue bi daal dinay jaxase tas tasar opposition bi boobule dialogue naa a metti wala xam ngeen ci téeméeri million Mamadou Lamine Diallo naan loolee njort nañu ne pour financer dialogue bi ci diirub ñetti weer ndax nag bés bu ne fukki million lañ ci daan frais loolee nag mënoon jàppale fukki junniy sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci jafe-jafe Saliou Sarr ne bu leen fàtte ne Sall ngaari lam tooro moonu woowoon ci dialogue dialogue boo xam ne ñaari at mobiliser nañu ko te ñaari at yooyee ña nga xam ne ñooy kàngam ya lu ëpp ñaari téeméeri million def nañ ko ca France daal di xidéem luñ na la naan dialogue nañ bay ba élection locale yeeg yeneen amal ko ci réew mi Sall la mu bëggaat moom mooy dialogue waat ci réew mi te xam nga koppar googee nga xam ne defoon na ko ci bu njëkk ba lu ko raw ma ni la président Macky Sall naraat na ko ci bile dialogue ndax nag turbine yéen kaay ne ma dialogue dil la dialogue dil boo xam ni sénégalais yi bu ñu ko nangoo lu jege benn milliard ma ni la ci seen koppar seen gafa président Macky Sall dana ne ko sëqeet daal di ko ciy def te ñooy ñàkk critique yéen kaay naan maan président Macky Sall ndax jaralu ko ko ndax nag mu tegu gëtam moom moo di Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade dellusiwaat ci réew mi waaye mën a bokk duggaat ci élection ci réew mi yéene kaay bi naan man faagaagal na njiital Pastef Ousmane Sonko Biram Souleye Diop ci Vox Populi naan ko déet nekkul de ba yegg ca critique yéene kaay naan man en tout cas daanaka Sall daal dinay dëxañ Ousmane Sonko ëllëgam ci wàllu politique ci réew mi looloo am Biram Souleye Diop ci 24 heures yéene kaay naan ma ne ban yegg ca critique yéene naan ko ma yëgli ma ne la Sall gannaaw ba mu paree ci Ousmane Sonko day daal di fas yéene waat fexe ba Karim Meïssa Wade xaar bokkaat fa nuy tabbee ci réew mi yi man boobu coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne Ababacar Sall fa la bokk coalition ba day ma nga nekk ci tànkuk tas wala bu doon xaatim nañu ak pacte boo xam ne mooy tax kenn du agressé sa moroom Ousmane Sonko ak Barthélemy Dias yamuñ te ña ngay gëjjante di mattanteeg di waxante kàddu yi ñaaw dialogue ba nga xam ne nag Sall ngaari lam tooro moo ko woote moo ko indi tribune naan sama wax du deñ dialogue ba day tàqale l'info yéen a kaay ne Barthélemy Dias kay lañ koy tuumaal ca dialogue ba nee na du ca nee na ñay weddi naan demunu ma la ñoo ñee ña nga ca xoluk dialogue waa ngay tas ndax Ousmane Sonko fii la taxaw naan du ma xaaf du ma Karim Meïssa Wade Barthélémy Diaz naan kon kenn kuy joué théâtre ci réew mi yow ah. Abdou Karim Fall bu yeewi Sénégal naan théâtre am de waaye yeewi askan wi ñëppay joué théâtre te xam nan ni moom coalition bi jeex na Abdou Khadir Sanogo ci Walf Quotidien naan coow li coow li jaru ko de ndax yeewi askan wi fi mu ne yegg na terminus wàcc kay gaare ku na jël sa moom moo ci des Le Quotidien sa morom keneen ki daal di xàcc fayuwaat moom Barthélémy Dias daal di ne manipulation bi génn nag xalaat ku ko daal di teggi ñu daal di dal sa kaw ak wax lu dul dëgg gi day daal di jeex yeewi askan wi nag du mouvement boo xam ne dañ ciy jàppale benn nit source a naan man ni kalashnikov de la Barthélémy Dias yor naan buñ jàppee ni coalition bi benn nit rek moo fi ne lépp lu ñuy dogal ngir benn nit la kon la taxoon jóg coalition bi daal di nay soppeeku te naan 2005 ak tey ngi ci politique kenn mënu maa waxal lu ñaaw ci réew mii ma def ko Bart naan wax waxaat du bëri wax ma baamtuwaat ko Ousmane Sonko yëgoon na dialogue bi ma ne la ci xooluk dialogue ba sax ma nga fa woon libération yéen naan man Barth daal fi mu ne la mu guuxaloon Ousmane Sonko daal dina ko koy yebbil wel naan réew mi kenn naa fi suwe théâtre mooma mooy manipuler askan weeg yeewi askan wi ngir ay intérêt mën di menacer askan woo xam ne yow go bës boo faloo mbaa doo jël nit ñi daal di leen di warax fa vox populi naan man maire bu Ndakaaru day ay tuytuyam la yor jagleel ko nag jiital Pastef te naan kon ñun juróoñu moomooñu ñu nangu nag benn xalaat muy sa bos dong di dox ci réew l'observateur procureur naan maan loo ca manta déggit moom Barthélémy Dias daal dinay yaxeet Ousmane Sonko l'évidence yéen kaay kon moo Barthélémy yaay kan Bart li ngay def lu mu l'observateur naan maan li jara laaj koy mooy Khalifa Babacar Sall coow li nag fu mu ca féetee ndax Khalifa nag ma nga ni faax toog ci yeewi askan wi yeewi askan wi woo xam ne kenn nanguwul dialogue wi yow xaaf dong yaa ko nangu te génnoo coalition bi l'exclusive yéen kaay naan maan en tout cas ñaari meeru taxaw moom fi ne defatuñu nenn ak Ousmane Sonko ña ngi koy jori xeer te naan yeewi askan wi groupe la boo xam ne benn dong la ñuy xeexal ak yi intérêt am Khalifa Babacar Sall mi nga xam ne dafa war a wuy ji dialogue bi ngir mën a nekk candidat kenn xeexalu ko te moo ne day Khalifa Babacar Sall moomee xeex ñu soobu ma nga ca tey ñu ne dañ koy xeexal gaa yi di jëfur Barthélémy Dias ne ma ne lii laa dul nangu maire bu Ngor moom it bokk ci taxawu Sénégal ma ngay dal ci Ousmane Sonko Magueye Ndiaye naan dégg nañ kenn mu naan askan wi nañu dem jàppale askanu Ngor ñu kenn ngir mu caxat-caxatee sunu gox ñun Ngor de coupe jàmmalante jàmm la ñuy wootee Le Soleil yéen kaay naan maan Ngor googee teg fa sa tànk ndax président Macky Sall dëgg-dëgg wut na ceg saafara vox populi daal di da ko ngor day fi mu ne dëgg la coow la jeex na waaye dem nañ ci dëkk goo xam ne yàqu na yaxeet dëkkub lébu ba bari na nit yoo xam ne am nañ fay gaañu-gaañu waaye la gaañ ci seen xol moo gën a miti lool ndax faatu bakkan ya libération yéen kaay naan maan xale bu jigéen bi faatu aji jàlloo la tuddoon fukki at ak juróom rek la amoon vox populi naan Antoine Félix Diop ma nga naan Elisu Gaal moo ko faat xale bu góor fekkee woon seen ba ne ñoom ñoo ko faat lu mën a am communiqué communiqué bi daal leerul libération yéen kaay naan coow la ca ngor ci boppam moo leerul jeexul ndax kër Cheikh Yérim sekk daal dinañ koy taal donte dëkkatu fa meeru ngor Maguette Ndiaye ci l'exclusive yéen kaay naan yónni wuñu kenn ngir mu taal leenu sunub dëkk ku ci mënta wax ba jàmm am noppil booba turbine yéen kaay ma nga naan F24 daal dina nuy pare lépp ngir seen manifestation bu aljuma ji te la gën a doon yitte ba moom moo di président Macky Sall du doon candidat waaye tam parrainage ñu daal di koy tasaare ci réew mi ba du bokkati waaye it fexe ba weñ loxo président Macky Sall ndax nag Ousmane Sonko able ci maire bu Ziguinchor l'évidence yéen kaay naan man Ousmane Sonko day tëjëm googee dem na nag ba ci table conseil des ministres Birame Souleye Diop Pastef daal dina dañuy gént rek ngi waajal congrès boo xam ne fal Ousmane Sonko ko tax a jóg investir ko ngir mu bokk ci élection présidentielle yi tribune yéen kaay naan man soxna Ousmane Sonko e kay neeñu ca kanamu palais bu président Macky Sall la ñuy dem taxaw 24 heures yéen kaay naan man coow li bari na ci réew mi politique baa ngi fi waaye tam suuf yi nga xam ni mën naa à tout moment mu ngi fi gannaaw ngor day séentu leen ay coowoo ca géejawaay l'indépendant yéen kaay naan man coowal suuf am na waaye coowal politique am na Barthélemy Diaz ma ne la nañ ko laaj ku ko ni ndax nag Bart mi ngi wax di yàqal boppam ku la yónni Alassane Dieng naan askanum Dakar warkat la nu gën a bañ seen àddina te Barthélemy Diaz nag ci sànk yooyee la nekk dafa tubayul ngembul président Macky Sall te loolee mi ngi koy yàqal lu bari firnde gi moom moo di Barthélemy Diaz juróom fukki junni abonné ñàkk na ko ci ñaari fan Ndakaaru dëddu Bart du Diop naan en tout cas yeewi askan wi kañ doon laam-laamee naan moo leen di yoole léegi feeñ na nag moom moo di Barthélémy Diaz fanta si Mermoz ne Barthélémy Diaz kat la la Bamba Fall defoon taxaw Sénégal moom la Barthélémy Diaz bëgg ak yeewi l'indépendant nan en tout cas Bart xaw ma lu ko tax a def waaye ma nga yàqal boppam Dakar Times naan man réew mi ci boppam moo nekk ci tànku yàqu àlluntin bu Afrika jom sant naan la ko mën a defar moom moo di politiciens yi wuy di ci dialogue bi réew mi quotidien dama président Macky Sall fi mu ne moo tëb dal cib xal dese na Sall beneen nuk tëb ma ñu koy tullee ci boor bu ne moom président mobilisation bu F24 bi naan ko tuy yeewi askan wi naan ko téll kusems sayems ak sayid ku ne di rong te nongal président tribune yéene kaay naan kon bul fàtte F24 mi nga xam ne mayul dara sàll ngaari lam tooro burgédee tribune yéene kaay naan man boobu ndëgg sërëx gi ñu defaloon sëriñ buub ci conseil municipal ba ngir du am day mujj naa am ba sax ñu daal di wote lépp loo xam ne tegoon nañ ko fa le point yéen kaay xëy tay di ñu xamal kan mooy Lat Diop gër bi nga xam ne mësta deltu ginnaaw ci combat président Macky Sall libération ne ma boobu réew mi lu sañ def la daanaka ñeenti milliards la fasoon yéene luubal cib marché turbine mel ni ku naan kon ñoo yey de ndax réew mi def lu ne weng te du mujjee fenn moo fi am El Hassan Sall naan ña nga patam patamee dossier Mame Mbaye Niang beeg Ousmane Sonko atte Ousmane Sonko fexe ba du doon candidat ci réew mi waxtu woowu ma ne la scandale yu gën a rëy bile mi ngi ñu daal di dëxëñ ci réew mi borom cocktail moo toofi ñu daal di jël làq jant bi waxtu woowu Alassane naan ma ne la ana Mamour Diallo Ousmane Sonko 94 milliards yi an scandale ba nga xam ne tuddoon nañ ca Mansour Faye te milliards yi bari lool junniy yi nga xam ne laal na covid 19 ani scandale juróom benn junniy milliards yi nga xam ne tuddoon nañ ca Aliou Sall kuy digle ca ngaay da ngay sangu ba nuppi mënoo ek ci réew moo xam ne justice bi dafa mel ni lu jéng te moo ne justice day moo mën a tax réew mi daal di amul dal coow li ca pëndub teen ba gaañ amul baag la waaye fii ci réewum Sénégal day na nañuy seetaane ak na nañuy tafee yëngal ñenn ñi buñ leen tuddee ñu làq leen ña ca des buñ leen tuddee ñu yóbbu leen ci kanamu yoon atte leen moo tax sampub laaj ci dëkk boo xam ne tooñ du fa ndax jàmm ak mën na faa am war ak lu mën am